أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان weeru kooru ren ji di dajeek atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeenti fukk ak ñaar ci jullit ñi waaye 2021 ci ñeneen ñi andi leen ak Daara Koki TV mu bégal leen ci ab programme bu am solo ci weeru koor gi danaw ala safarin fa iddatum min ayaamin uxar ci biir alquran al karim ci ay ayat yu wuute sunu borom tabaraka wa taala mu ngi ñuy wax topp gi nga xamante si ne moom la ñu war a topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak roy giñ ko war a roy moom moomee ñu war a roy moom de ku fonkoon jàmm yàlla la waaye tamit ku fonkoon alquran la rawatina nag su weeru koor gi daan ñëw loolu sax moom la ibnu abbas di nettali di wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada annaas wa kaana ajwadu ma yakunu fi ramadana xiina yalqaahu jibril جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ngir roy ko ci moom sallallahu alayhi wa sallam ci bëgg alquran ak di ko dundal ci weeru koor gi loolu moo tax Daara Koki TV di leen proposé bés bu jot ay ndaw yoo xamante si ne yu mun alquran lañ waaye tamit seenu njàngin dëppoo ak ni nga xamante si ne noonu la boroom xam-xami tajwid tëralee njàngin wi fa in intahaw fa inna allaha ghafurur rahim ci tajwid boobu sax ci la ñuy des ndax léeg léegi nga gis kuy jàng alquran bëgg ko lool wante bu koy jàng day faral di def ay njuumte ci njàngin wi su boobaa xam-xam biy jàngale loolu moom la ñuy dippee tajwid al oustaz maam Cheikh Lo moom mi nga xamante ne dafa am ay lijaasa ci wàllu woowee moom moo leen di dig daje dimanche bu jot bu juróom-benn waxtu ci ngoon jotee maanaam 18h ci seen biir émission bi di njàngum tajwid ومن الناس من يقول آمنا kooku noonu saakine la goo xamante ne si danga kaa jël nga dugal ko ci ak yaa bu ko defee tamit léeg-léeg nga daal di wooru ba digg njolloor nga daal di jamaj wala sax nga tey ko lekk wala nga naan nga toog di laajte atte bi nga xamante si ne moom la lislaam tëral ci mbir moomee su boobaa laaj yi ki koy tontu may al oustaz Ahmadou Bamba moom mi nga xamante si ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu woowee mu fas yéene ànd ak yéen ci seen biir émission bi di xam samay attey koor ci weeru koor gi yépp bés bu jot bu 18h jotee maanaam juróom-benn waxtu ci ngoon programme bi nag yemul foofu ndax am na beneen rubrique boo xamante si ne moom la ñu dippee sama wareef ci daara ji muy rubrique boo xamante si ne mooy fësal lépp loo xamante si ne moom la way defal yàlla yi di indi fii ci daara ji ci lekk gi wala ay jumtuwaay yoo xamante si ne daara ji daf koy jëfandikoo ñoom nag ñu dëggal mébétu ki nga xamante si ne moom moo sosoon daara ji di Cheikh Ahmadou Sakhir Lo rahmatullahi alayhi moom mi nga xamante si ne mébétam nekkoon na jamono di dox ba ñi nga xamante si ne ñoom ñoo génnee ci daara ji wëlbatiku daal di yor daara ji kon nag mbokk yi seen wareef ci daara ji الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Daara Koki TV moo leen di ñaanal kooru jàmm Daara Koki TV la chaîne au service du Saint Coran